anta to jedo as ya awato dema bi qudratil lakaya aousu billahi min aseytaani rajim bismillahi samil alim mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki islam rawati nag mboolem njabootu seydina mouhamadou rasulillahi salallahu alayhi wa sallam yi yeewoo ci biir réew mi ak bitim réew nekkee ko ci gox yi fas yeeg yu yi mbokk yi daayira ahlu badar bu faas ñoo leen di woo ci seen bisu gàmm gañ daan amal at mu ne ren bis ba ñu jàpp ko le 14 janvier 2023 bis ba di amee ci ndigalu cheikh mouhamadul basir xalifatul hamd taifatu daaxu na fi yag lol te wer ci taxaway dahiratu ahlu badar bu fas ñoo leen di wo ci seen gamu gu mag amal at mu ne ren japp nañ ko le 14 janvier 2023 bis ba bu ñu xëyee di leen fa amal njànguma alquran wacce fa kamil lu sel salatu ala nabi lepp lu way mën dal di ko kelo ci bis bi bu guddi ga jotté ya nak ñu dal di fa amal sikka su neex and ci kat yu mag yi nga xamanteni sa saa bu ñu yëkkatee seen kàddu xol yépp dal di fex ki nga xamanteni mo ñi ñu gunge ci guddi ga koy serigne dam at mi ñu gëna a ci daam yu waqit boxam baatu wurs bi boxam baatu or bi ki nga xamanteni sa bu éré ñëpp dal di kontaan daanee xol yi sedd mooy bàyyi daam yi waaqi waaye kan mooy firi gàmmu ga ñu ne sëriñ Basiru Kéemaan xam bu sell bi sëriñ Basiru xam-xam bu tedd ba ci xam-xam bu sell rafet jukko ga mooy firi gàmmu ga àndi ceeg ñi nga xamante ni di leen fekkee boobule bis ñu ne bis ba ñoo ngi ci woo waa muhtadina bu faas te di ci invité waa caaxumaat yi waa kër Mor Suuta te di kër Mor Yaasin kër Yuróodu invité waa kër Njang mulo kër Njaga ak mulo kër Sonko waa Daaru Pakacaar te di ci invité daayira Ansarullaay te di ci invité groupe soppe sëriñ Mansour groupe soppey Cheikh Tidiane Ndaw te di ci invité groupe soppey Cheikh Mouhamadoul Bassir waa Sénat la te di ci invité waa Kër Seet di ci invité waa Maka Fass waa Caaxo li ci gën a neex mooy ñi ki nga xamante ni moom la ñu dara jaareel muy El Hadj Mamour taalibe El Hadj Omar sunu way juux bu tedd ba moom la ñu jagleel bis ba ñoo ngi ci woo mbooleem kuy wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammada rasulillah ca bis dinañ ci ànd ak seen télévision bu mag bi nga xam xamante ni mooy sopp Farokh TV dina leen gunge ci bis boo lépp lu soxla ci gàmmu gi ku ci bëgg yeneen leeral mën ngaa woo Modou Cissé DC sopp Farokh TV ci téléphone mbokk yi bis baa ngoogu waaleykum salaam wa rahmatullah